auzu billahi mina seytaani rajiimi bismillahi rahmaani rahiimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu dinaa bin sant yàlla julli ci yonantam ba seydina muhammad salallaahu alayhi wa sallam fu mën a nekk ñëw leen di saar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér xéewal yaatu defaru àddina ak àllaaxira ci ajuma ju sell ji yow daal sam sewa dana seet bu la seetlee wax la sarax wala wax la sa càngaay foo ma dem defe ji fa nga dem defe ji fa tey pour jigéen guy am doom am doom nga yomb te du ci jog benn coona muy nag bisimilah rahmaani rahiim secret la bu yéeme ci jigéen yu am doom te buy am doom tamit dana yomb mat wala dana yomb te du ci sonn kon vidéo bi ko jot moom mën nga ko partager boole ko tamit kuy julli fajar ñaari rakkay fajar yu njëkkee la nag boo koy julli te bëgg mucc ci pexem noonu ñaari alam yi alam nasra boo koy jullee raka bu njëkk ba benn raka ba ju topp nga jullee ko alam tara kayfa suñ borom dana musal ci pexeem noonu te dana mosal muy la am solo ku duggoon tamit mën ngay wax karatay ni yan xalib karatay ni karatay ni rek boo ko waxee ñetti yoon suuf lu sëb ci kàttan suñu borom suñu borom la jàmm andiwaale ci jàmm kon lii secret basmala bu jëm ci jigéen joo xam ne dafa toll ab diggante te bëgg buy mucc mucc ga yomb lool te gaaw. da ngay bind nii kon gis nga ko ni ma ko bind nii nga koy bind da ngay miim gi doog ubbi allahu gi nga ubbi alsaqir gi gi nii nga gaa gi nii nga ubbi miimu rahimi gi lii nag moom ngay bind ñetti yoon nga bind bismillahi rahmaani rahim bii ñetti yoon ko bind benn yoon ñetti yoon nga koy bind bi nga bindee bii ci biir al alsaqir gi da fi bind xuwa xuwa ji ngay bind ci biir gis nga def naa ko boo diggee ci arrahmaani gi nga bind fi samalu moom nga bind ci biir miimu raxmaani gi da nga ko ubbi nga bind fi samalu boo dikkee ci raxiimi gi waxaabu ji nga ciy bind mi ngi nii waxaabu moom ngay bind ci biiru miimu uh, raxiimi gi bu ko defee da nga ko def saafara nag ñetti yoon nga koy bind nag lii ñetti yoon nga koy bind bu ko defee da nga koy def saafara ki nga xam ne moom mooy jigéen wérut mu ciy naan di ci raay ci biiram diiru juróom-ñaari fan ci kàttan suñu borom de mat wa dana yomb te doom ji dana barke dana masala lay daal kon ñoo leen siyaar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér xéwal yaa defar àdduna ak àllaaxira wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu